yàgg fi ngeneel la ci ñun waaye kon wax Baye Abdoulaye yàlla fi yàgg te gën a wér yàlla fi ak mboolem njaboot ah, ñu ngi nuyu ah sang sunu imaam yu baax yi ci seen taxawaay yéen bi diis na de waaye nag dékku ngeen ko ku yenu cëru yàlla nag. nee na ku yenu cëru yàlla nag. sant yàlla rek la. sant yàlla moo la war. ñu ngi sant yàlla ci yéen. Serigne Cheikh ne ñu ngi sant yàlla ci suñuy imaam. ñu ngi nii toog ñu ngi nii toog imaam Bakary nga xam ngeen démb jeen ak ñu jóge faneen. imaam ngeen jin jin fay mi. macha allah macha allah. ci warma bi nu nu jox ci warma bi nga xam ni jox nan ko ahlu bayti rasul. jaajëf waaye sax bi ne ñu ngi leen di jaajëfal. loolu rek la fi mag ñi bàyyi loolu rek la fi mag bi ngeen am. cër bi ngeen am. ñun duñ ko xëccoog yéen. ñun duñ ko xëccoog yéen. yéen a ko moom. yéen sa yéen a ko leen koy dëgëral. dañ leen koy dëgëral rek. waaye rafetal. waaye rafetal nag. rafet na lool. na de. yàlla na yàlla taaral. waaye saga bi yàlla ko yàlla gën a taaral. jërëjëf laay Muxtaar. jërëjëf Ngin Fay jërëjëf. jërëjëf Imaam Bakar jërëjëf Imaam Bakar. jërëjëf Imaam Ngagne Demba Diène. ñu teewal fii ñu teewal fii nag. Imaam Ratib Imaam Ratib. imaam libaas loolaay. ku am cër ku am cër. boo wutee it boo wutee sa teer dafay ne. mooy imaamu raati. mooy imaamu raati bu Cambérène. ci barke jàkkub Seydina Issa Rouhou Laye bii. kon Serigne Cheikh ne yàlla ka yàlla gën a dëgëral na ñu ziyaar nag. su boroomi dëkk. suñu boroomi dëkk. Baye Baye Doudou Aan Baye Doudou Aan chef de village mi ngi di toog. Baye Issa Niang mi ngi di leen ñaanal waaye te dëgëral te ñaan yàlla dëgëral leen. te ñaan nag sunu borom yàlla dëgëral leen. ñoom ñii day. ñoom ñii day. yàlla seede ni. yàlla seede na ni. fépp fu ñu teew fépp fu ñu teew. sagu kàmbareen sagu kàmbareen la. la ñu bëgg la ñu bëgg. dafa bis. nee na dafa am bis. Baye Doudou Anne mii. Baye Doudou Anne ñu daje réunion. ñu daje réunion. groupement central. sa groupement central la woon. diine ji yëpp. diine ji yëpp. am ku ni. am ku ni. yéen da ni. yéen da ni. Cambérène Cambérène mooy boppu diine mooy boppu diine ji wane leen ko wane leen ko wane leen ko wane leen ko yéen xam ngeen ni Cambérène yéen xam ngeen ni Cambérène musul des ginnaaw musul des ginnaaw ci diine ji ca mag ja ba tey ca mag ja ba tey waaye léeg-léeg waaye léeg-léeg am lu yëngu am lu yëngu. keroog Baye Doudou Anne. keroog Baye Doudou Anne. dafa génn chegam. lii Cambérène ne ko def ne lii Cambérène moo ko ko def lii maa ko nga koy ñaanal waaye da nga kaa ñaanal. mu yàgg fi te mu yàgg fi te gën a wér. Baye Doudou jërëjëf. Baye Doudou Anne jërëjëf. ñaanal sunu maire. ñaanal sunu maire dëkk. Mame Amadou Samb yàlla suturaal ko yàlla suturaal ko. ñaanal mboolem gan. ñaanal ni ak foo mën a doo sang bi ne ñu ngi laa ñaanal. waaye ñu jël nag njaal mi waaye nag ñu jël njaal mi nag njaalu Serigne Ablaye njaalu Serigne Ablaye bii. tekk ci loxo tekk ci loxo. sunu baay libaas tuba mu baax male. mooy kilifa ëtt bi mooy kilifa ëtt bi. moo ma njiin jaaga moo ma njiin jaaga. ak mboolem ku ak mboolem ku yeewa cëtt. yàlla na fi yàgg waaye sang bi mi ngi koy ñaanal yàlla na yàlla yokk wéram. yaa mi tax nu daje nag. nee na Joblaay mi tax nu daje fi nag. waxti moom yomb na de. waxti nee na yomb na. ki nga xamul. ki nga xamul. ñu ne la waxal ci moom. ñu ne la waxal ci moom. di nga jaxasoo. di nga jaxasoo. waaye koo xam. waaye koo xam. rawatina. ala rawati. la nga xam. la nga xam. mu doon lu rafet. mu doon lu rafet. kooko wax ca moom. waaye kooko wax ca moom. day yomb dafay yomb. li gën a rafet nag. sax bi nee li gën a rafet nag. jëkkëram. jëkkëram. taxaw seede. taxaw seede. seede bi mu seede. seede bi mu seede. ñun ñu dégg ñëpp ñu teg suñu dëkk su nopp. macha allah. macha allah. yaa faati tànneef la. nee na yaa faati tànneef la. li maam Alassane wax léegi. li maam ca Thiaw wax léegi ca armeel ya ca armeel ya ne soxna ne soxna ak jabar ak jabar wallaay dëgg la sax am na différence wallaay dëgg la laay nee na dëgg la laay yaa faati yaa faati soxna la moom du jabar soxna la ñoo ko yar ñoo ko yar nag ñoo ko yar ñoo ko yar ñoo ko jàngal jàngal valeur ya mu yóbbuwoon. valeur ya mu yóbbuwoon cëreem Amérique. moom la doon dundee moom la doon dundee. ba ñu tëral ko fii ñu ko fii ci kanam Seyna sa yaa Faati. nee na yaa Faati Diop. ñëpp ko gërëm. ñëpp ak a gërëm. mbay ñu ngi lay masaw. waaye mbay yow mi borom këram ñu ngi laa masaw. ndax yow itam. yow itam. da nga nu yoral da nu yoral. da nga nu peralal da nga nu teralal da nga nu sagal da nu sagal. nga ànd ak samak nga ànd ak samak Pape Samba Pape Samba ca amee rek mu doon tànneef mu doon tànneef nag foofu ca ñëfa jiitu ca ñëfa jiitu nag ca la bokk ca la bokk njaboot gu ñëw njaboot gu ñëw mu uuf mu uuf moo la uuf moo la uuf uuf keneen uuf keneen uuf keneen uuf keneen ak keneen Pape Samba macha allah Pape Samba sa mag macha allah xam Baye Ndiaga Samba ko xam Baye Ndiaga Samba ca ngëmam nga ca ngëmam nga ak taxawaayam ak taxawaayam ba ku mu jur ku ne ku mu jur ku ne gay na nga war a gay na nga war a doon jaageen jëf jaageen jëf mbay mii mbay mii nag xamul caaxaan xamul caaxaan kon ñu ngi la koy jaale ñu ngi la koy jaale di ko jaale di ko jaale Pape Samba waaye di ko jaale waaye di ko jaale laay ya nekk Amérique yëpp ñoom laay laay ñoom laay laay ñooñu dañu baax ñoom dañu baax ba ñu tuddi leen laay ba tuddi leen laay laay njin ñang njin ñang bu may bàyyi matul bu bàyyi matul ñang macha allah macha allah ak xale ya ñu ëmb yëpp ndax xale yu ñu ëmb yëpp suñu jigéen ya suñu jigéen ya soxna Pape Samba soxna Pape Samba ñu koy wax ñu koy wax Mariama Mariama dafa gëm bàyyi laay ba sey dafa gëm bàyyi laay ba sey ma nga jógee Guinée ma nga jógee Guinée waaye saaba bay lay waaye saaba bay lay la yar njabootam yar njabootam ci diine ji ci diine ji ànd ak mbay sàmb ànd ak mbay sàmb ànd ak ànd ak yaa faatimi yaa faatimi ñu ëmb nogay ñu ëmb nag nogay soxna soxna libaas libaas ñu def benn dank ñu def benn dank boo fa demee boo fa demee xam ni xam ni ñii ñii mag ñee leen meññ mag ñee leen meñña te dinaa seedeel dëkk bi dinaa seedeel dëkk bi nag ñoom ñii ñoom ñii magay seen a nii magay seen a saa yu dëkk bi soxlaa saa yu dëkk bi soxlaa ñu dajale la ñu am ñu dajale la ñu am yónnee ko dëkk yónnee ko dëkk bi seedale ci seedale ci Baye Doudou Ané Baye Doudou Ané ngi Imam Libaas Lo Imam Libaas Lo ñoom Issa Niang ñoom Issa Niang seedale seedale ci ndax lu ñëw ndax lu ñëw sama loxo la jaar sama loxo bii lay tegu jaar fi ñoom ñi dëkk Cambérène ñoom ñi dëkk Cambérène ñooy teral ñooy teral waa Cambérène waa Cambérène ba barki démb ba barki démb ci mbënd mi ci mbënd mi ma ngay seen mii ma ngay seen mii lañu teg alal ja lañu teg alal ja sama loxo sama loxo ma woo ñan war a woo jox leen jox leen ko lii dafa jar a seede waaye yii dafa dara seede xamal ko waa dëkk bi ña nga ca biti nee na ñoom jëg ca biti seen xel seen xel mu ngi fii bépp mi ngi ci kàmbere kon loolu seede la kon sax bi ne loolu seede la mënul woon ñàkk mënul woon te ñàkk alhamdulilah kon sax bi ne alhamdulilahi alamin rabbil alamin liba samba nee na liba samba mooy magu pap samba mooy magu pap samba tey mooy seen kilifa tey jii mooy seen kilifa ñoom ñooy njiit aada ñoom ñooy bàyyi njiit aada nii macha allah macha allah moom it mu ngi naan gërëm naa moom it ma ngay gërëm naa ay rakam ay rakam mu ngi leen di gërëm mu ngi leen di gërëm di leen sant di bu rafet ndax taxawaay bu rafet a jërëjëf a la ca na gaañ la leen di jéggalu ñu ngi leen di jéggalu ci tàngoor bi ci tàngoor bi waa Cambérène waa Cambérène jërëgeen wa waa Cambérène waa Cambérène jërëgeen waaye sa ngay ne jërëgeen jëf yéen da ngeen di fekk yéen da di fekk ku néew doole ku néew doole ngeen may ko doole ngeen may ko doole xool ku sëngeem ku sëngeem gen yëkkati gen yëkkati ko jaageen jëf waaye jaageen jëf Cambérène lii mooy Cambérène lii mooy kenn nekk lu kenn nekk ñëpp nekk ñëpp nekk yàlla nu leen yàlla yàlla nu leen yàlla fay waaye ndaw ñi waaye ndaw ñi fay allah macha allah bu ngeen taxawee rek nee na bu leen taxawee rek xool yi giif xool yëpp dafaa giif waaye Babacar waaye Babacar yéen a ngi sikkar sikkar soo xam ni nee na ñu ngi sikkar koy tëj sax buñ koy tëj sax léeg-léeg léeg-léeg du ngeen xam doo leen xam ñenn ñu bokk ñenn ñu bokk li ñuy wax lan li ñuy wax lan la fàttali nag fàttali nag dafa baax de dafa baax maa ngi wax démb ni maa ngi wax démb ni an naasu niyaamun andis an an naasu niyaamu fa iza maatu fa iza maatu intabahu intabahu wa iza intabahu wa iza intabahu nadimu nadimu maa ngi ne nit ñi. waaye sax mi ne maa ngi ne nit ñi. dañuy nelaw. danoo nelaw. baal leen ma wax wi baal leen ma wax ci. kañ la ñuy yeewu. ka la ñuy yeewu. bu ñu deewee bu ñu deewee. tey. kuy gént. kuy gént. fekk yeewu woo. fekk yeewu woo. doo firi gént doo firi gént gi. am déet. am déet. waaye bu dee ñëwee. waaye bu dee ñëwee. ci la ñuy soog a comprendre. c'est la ñuy doog a xam nag. li xew lan la li xew lan la. iqtaraba linnaasi. iqtaraba linnaas. xisaabuhum. xisaabuhum. wahum. wahum. fii xaflatin. fii xaflatin. muuriduun. muuriduun. li tax waare am solo. ne li tax waare am solo. ñu ngi gën a jege saa. ñu ngi gën a jege saa. waaye Cheikh Mbacke. waaye Cheikh Mbacke. mi ngi gën di sàggan rek. mi ngi gën di sàggan rek. yaa ngi gën di sàggan rek yaa ngi gën di sàggan rek lan moo tax ñuy nelaw lan moo tax ñuy nelaw ba nga dem ba nga dem xam nga luy xew xam nga luy xew dañu naan pëkk pëkk pëkk dañu naan pëkk pëkk pëkk man baasana man baasana min marqatina min marqatina hada hada ما وعد الرحمن ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وصدق المسلمون كوني نبك كوني نبك بك ngay soog a comprendre ngay soog a comprendre li xew li xew lan la nga nekk fanaan nga nekk fanaan yàlla yàlla waaye delloo ma waaye ma may ma rek ma delluwaat àdduna. trop tard. waaw loo fay wuti. loo fay wuti. waaye daw ma julli. daw ma julli. daaw ma woor. daaw ma woor. daaw ma natt asaka. daaw ma natt asaka. dama sàgg noonu. dama sàgg noonu. may ma ma réparé ji. may ma réparé ji. yàlla ne tekk rek yàlla ne tekk rek di la déglu. ak lan ak lan yàlla yàlla am na mbokk bu jaxasoo am na mbokk bu jaxasoo maa ko yàq man mii maa ko yàq may ma ma dem defar ma defar ko yàlla ni tekk rek yàlla ni tekk rek yàlla yàlla man dama amoon wërsëg man dama amoon wërsëg waaye ca soxna ya waaye ca soxna am na ci koo xam ne am na ci koo xam aw maag moom doom waroon naa ko may waroon naa ko may ca alal ja waaye mayu ma ko dara ma ko dara sumun rek rek lay am ci lay am ci man te amaan na te amaan na sama njaboot sama njaboot ginni ko ginni ko fa mu ne fa mu ne ma delluwaat ma mm. yàlla ne ko yow laay déglu. yàlla ne ko yow laay déglu de. mu ne ko yàlla. mu ne yàlla. amoon naa ay ay ay ñu ma bokkal ndey. amoon naa ñu ma bokkal ndey ak baay. amoon na ay jigéen. amoon naa ay jigéen. ñu doole nu néew doole. yàlla teral ma yàlla teral ma. sedduma leen sedduma leen. sama alal sama alal. dara tey sama njaboot rek tey sama njaboot rek. ñooy jëriñoo alal ji ñooy jëriñoo alal ñooñu. Hmm. yàlla nekk ndax des na yàlla nekk ndax des nga pare nga muy kebetu rek muy kebetu rek ngir bëgg a dellu si ngir bëgg a dellu si waat rek ngir réparé ngir réparé waat yàlla ni yàlla ni kallaa kallaa innaha innaha kalimatu kalimatu huwa huwa qailuha wa min waraihi waraihi barzakh barzakh ila yawmi ila yawmil yab'asun la ilaha illa allah trop tard gars yi nanu yeewu waaye gars yi nanu yeewu nanu yeewu nanu yeewu réparé li weesu. réparé li nga xam ni weesu na. boo gisee ma ni waare. boo gisee ma ni waare. Seyna Idriss. Seyna Idriss. dafa am solo dafa am solo. Euh, dafa am lu nu sang bi dénk. dafa am loo xam ne sang bi daf lu ko dénk. dinaa ci ñëw. dinaa ci ñëw ci kanam. ci lu gàtt ci lu gàtt. damay baña damay baña fàtte mbay saar mi fàtte mbay saar mi. ak gaa ndax waare. ndax waare. day defar xol. damay defar xol. waaye nag. waaye nag. dafa am lu nu sang ba dénkoon. dafa am lu nu sang ba dénkoon. wala ansa. wala ansaakum. maam Biram. maam Biram. wala ansaakum. wala ansaakum. samaam limaa moo ko waxoon samaam limaa moo ko waxoon. moo ko sañ a wax nag. moo ko sañ a wax nag. ndax mooy Momadou. ndax mooy Momadou. rasulullah rasulullah. moo ko sañ a wax moo ko sañ a wax. Ibou la Ibou Seyni. Ibou Seyni. sa maam sa maam. lu yàlla bind. lu yàlla bind. moo ci gën waaye moo ca oh, wala ansaakum. wala ansaakum. ñun nanu gore. waaye nanu gore waaye nee na. kàddu ba kaddu. gi rek. du ma leen fàtte. du ma leen fàtte. xam nga lu ma jiite xam nga lu ma jiite inni muhibbukum inni muhibbukum maa leen bëgg waaye bàyyi laay def ne yéen maa leen bëgg li tax mu am doole li tax mu am doole démb démb dañu jox ndigal dañu jox ndigal ne nu yéen ne nu yéen bëgg leen yonente bëgg leen yonente bi ndax farata la ndax farata la ci yéen ci yéen bëgg ka bëgg ka farata la waaye aaxiru zamaan waaye aaxiru zamaan moom limaam moom limaam moo nu déclaré moo nu déclaré ni amour amour moo nu déclaré mbëggeel moo nu déclaré mbëggeel inni muhibbukum inni muhibbukum waaye laay ne ne maa leen waaye laay ne waaye maa leen bëgg duma leen fàtte duma leen fàtte rek dugg leen ajjana xataa tadxulul janna feeg dugg leen ajjana feeg dugg leen ajjana waaye laay ne ne duma leen bàyyi waaye laay ne duma leen bàyyi mbëggeel googu nag nee na mbëggeel googu nag bu nu ko waxee buñ ko waxee dafa war a saraab dafa war a saraab ci sunu diggante ci diggante yi mooy sunu doole mooy sunu doole ku ñuy wax Fouaydou ku ñuy wax Fouaydou agresseur la agresseur la bari doole bari doole lool sonal gox ba mu nekkoon sonal gox ba mu nekkoon waaye mbëggeel la waaye nag mbëggeel moo ko sobee dafa dafa nopp benn jigéen dafa nopp benn jigéen àndatu ci ak sagoom àndatu ci ak sagoom ndaw sa bëgg kaa defar ndaw sa bëgg kaa defar nangu mbëggeel nangu mbëggeel nekk loo ma bëgg nekk loo ma bëgg maa la raw maa la raw gëmeew ko gëmeew ko léegi nag léegi nag ah fu way du fu way du talatul talatul agressé ba agressé ba ndax xalaat ndaw ndax xalaat ndaw si balaa yëbu doon tëral yëpp balaa yëbu doon tëral yëpp ca ba léegi sa ndaw sa la jëm léegi sa ndaw sa la jëm ba benn bis ba benn bis fooy du jóg fooy du daal di jóg ne ndaw si ndaw si dama bëggoon ñëw seen kër dama bëggoon nag ñëw seen kër ndaw si ne ko ndaw si di ko sama baay dafa fiir de sama baay dafa fiir de mu mel ni imam Bakar rek mel ni imam Bakar rek sama dafa fiir de sama baay dafa fiir dafa fiir boo bëggee ñëw daal boo bëggee ñëw daal da ngay bàyyi ba deux heures du matin da ngay bàyyi ba deux heures du nga ñëw nga ñëw waaye booy ñëw booy ñëw tëbal miir tëbal miir bu jaar ci buntu jaar ci buntu bi waa ji di calculer rek. waa ji di calculer rek. ba waxtu wa jot. ba waxtu wa jot. mu yolleeku mu yolleeku. ñëw ba ca ba. ñëw ba ca miir ba. ndaw sa may ndaw sa may këbët. mu ngi ci biir kër ma ngi biir kër ga. ba mu ñolgatee. ba mu ñolgatee. benn tànk bi benn tànk bi. benn tànk dese benn tànk bi dese. mu dégg benn kàddu. mu dégg benn kàddu. ndaw jàng. ndaw say jàng. alam yaani. alam yaani. lilladina. lilladina. amanu. amanu. an taxsha. an taxsha. qulubahum. li zikrillah. li mu yuxu. mu dëgg la mu ne xanaa jotul. mu ne xanaa jotul nag. ci ñi gëm yàlla. ci ñi gëm yàlla. buñ leen waaree. buñ leen waaree. ñu dellu ginnaaw ñu dellu ginnaaw. mu wàccewaat tànk ba. mu wàccewaat beneen tànk ba. boolekaat jooy boolekaat jooy ah kay jot na kay. ah kay jot na kay. jot na kay jot na kay. ku gëm yàlla ku gëm yàlla. buñ la waaree buñ la waaree. nga bàyyi lu bon nga bàyyi lu bon. ma nga uti station. ma nga uti station. ak i jooyam ak i jooyam. dem toog dem toog. di jooy rek di jooy rek. di réccu rek di réccu rek. comme que station la. comme que station la ñu tukki woon. ñu tukki woon ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw. am ci jigéen ñaari jigéen. am ci ñaari jigéen. ne nanu toog fii. ne nanu toog fii. ba asamaan set ba asamaan set. ñu soog a dem ñu soog a dem. ba asamaan setee. asamaan setee. ñu ngi dendoog fu waay ñu ngi dendoog fu waay di. te yëguñu ko te yëguñu ko. kenn ki kenn ki eh, dem jot na kat eh dem jot na kat mbedd mi laay jaar mbedd mi laay jaar mu ne ko yow da nga dof mu ne ko yow da dof fii mbedd fooy fii do bu fa jaar de agresseur bi agresseur bi fii mooy mbeddam fii mooy mbeddam <laughs> waa jànk yi du mi ngi sëngeem gisuñu ko mu yuuxuwaat mu yuuxuwaat ne ah kay ne ah kay jot na jot na kuy def lu bon kuy def lu bon buñ la waaree buñ la waaree nga bàyyi nga bàyyi kooku kooku wàlliyu la mu sa doon wàlliyu la mujj doon la mujj doon gaa yi waare baax na de gaa yi waare baax na de waare baax na de waare baax na de kon bay Sarr kon Mbaye Sarr lii ngeen nekk lii ñu nekkee di ko def di ko def bu ngeen si karee bu ngeen si karee كل شيء فان كل شيء فان إلا الله باخ ما ديغ ما ديغ خلاي نان خلاي نان اللهم باب البشرى اللهم باب البشرى am na ku koy wax am na ku koy wax te xamu ko loolu mooy lan idda idda seen maam li maam seen maam li maam yéen seen soppe yéen seen soppe ki leen bëgg ki leen bëgg te du leen bàyyi te du leen bàyyi ba àjjana ba àjjana moo wax wax bi moo wax wax ji dafa génn jàkk dafa génn jàkk mag ñu toog mag ñu toog nii sa ngay toog nii sa ngay toog yu rafet kaar mu génn ci jàkk ji mu génn si jàkk ji mag ñi jàkkaarloog moom mag ñi jàkkaarloog moom mu jël loxoom mu jël loxoom ba naan ne jëbbal loxoom libaas eh, imam libaas daa jël loxoom ni ka jëbbal imam libaas laay laay laay laay laay moom nu laay moom nu maxtaar wër saa ba yëpp wër saa ba yëpp nuyu leen nuyu leen jàll ci seen ginnaaw daal di jàll seen ginnaaw mag ñi ëlbatiku mag ñi ëlbatiku mu jublu penku mu jublu penku mu ni laay mu ni laay ndax gisu leen lii la ñëw ndax gisu leen la la ñëw mag ñu nekk limaamu gisuñu dara waaye ni kenn limaamu dara lañ gisul mu ni laay laay laay laay mag ñi jooy mag ñi jooy mu leen gis leen mbon mbon yi mu ne leen gisu leen mbon mbon yi jóge ci penku bi jóge ci penku bi di ñëw di ñëw mag ñi ne ko gisuñu bàyyi leen di ko gisuñu mu ne laay laay في تلامسه كما حديث رسول الله صديق غني لان أتى حديث الإمام باي لا يدون وخسان في تلامسه عندك سابي كما حديث رسول الله واي لم دون وخ برسول الله تولو فوف تي يونو مو جيك ني لا لين كو وخي وون لما أتى بخريب بامو جيغني أتيه ديغم با فاكا قبو زمان booba bàyyi laay ma nga war a ñibbi àllaaxira ca lay waxtaane nag mbon mboni jamono naan eh, ñëw te dina yàqu lu mu wax bokk bu waaw a fasaadun bàyyi laay ngay nettali mag ñoom mbon mbonu jamono ak yàqu tega kaana yaxbilu naa bàyyi laay nga naan dëgmal nanu wal fitnatun fitna jëpp tar ne day ñëw ci mbetteel yaati maal warami day ñëw di wareel ak métit mawtul fujaa ñu ne ko bàyyi lay lii xew la la mu ni deewu mbetteel wataahoon besta ba xat kasaroo dana bari wal faxri ñàkk ga yaa ajaban ay yéemu naa wa juuyi wa si xiif ba ak feebar ba xarbul ni jay si nasara bàyyi lay ni nasaraan yi dinañu xeex inda masrixi ca penku ba yaati baxtata seen xeex boobu nag dana ñëw ci ñun ci mbetteel xaari boo na su na demi ña doon xeex ñëpp dinañu rëccu déglu moo tax xaarixu ni ne sang bi ne moo tax xaarixu ni bàyyi laay lu mu wax dëgg la bàyyi laay lu mu wax dëgg la bàyyi laay lu mu wax dëgg la nee na bàyyi laay lu mu mus a wax dëgg la waa gars yi waa gars yi ku am lu kenn amul waaye ku am lu kenn amul da ngay fandaañu da ngay fandaañu kenn jëful nga jëf lu kenn jëful. ndax ñu def tamit lu kenn deful. ndax am ca leer ya loolu yaa ko sang sang bu tedd boobu. nee na sang bu tedd boobu. keroog. keroog. la ni laay. la ni laay. borom bii. borom bii. déglu leen bu baaxale. borom bii. borom bii. wóolu na jaamam bii. wóolu na jaamam bii. waaye jaam bii. waaye jaam bii. wóolu na boromam. wóolu na boromam. te doyloo na. te doyloo na. keroog la bàyyi wax loolu. keroog bàyyi laay kaddu yi la yëkkati. na borom bii. mu ni borom bii. borom bii. wóolu na wóolu na. jaamam bii jaamam ndox yaa ngi may dégg. Imaam Bakka. mu na jaam wóolu na wóolu na. boromam bàyyi laay ni bàyyi laay ni ba soobee sama borom ba soobee sama borom dana ma dana ma leen a jox dina ma leen a jox saafara